nekk ci réew mi ak bitim réew tey nag ñu ngi fii jàmm gën bu ñu ñëwaatee jàmm gën xel day dem ki nga xamante ne mooy Siteu Siteu woo ñu fi ci li nga xamante ne mooy jaamu yàlla en tout cas lim ñu mën a woo mooy social xam nañ ko ci social bi yoon moom du Siteu mi nga xamante ne day départ convoi bu bari topp ko mu jëm arène nationale mais Siteu mi def ñu woo ci li nga xamante ne mooy jaamu yàlla gisoon nañ Siteu ci jamono bi nga xamante ne ci la ndox mi bëree ci jàmm gan gis ngeen taxawaay bu rafet bi nga xamante ne am na ko ci tey woowaat nañu ci leneen ginnaaw loolu nag mooy da don de sang bi nga xam ne woo nañu ci dañuy nuyu ñëpp bàyyi leen ñu nuyoo ñoom ñi nga xamante ni vraiment ñoo ñoo initiative lii nga xamante ni vraiment xew na fi ginnaaw loolu ñu bàyyi kilifa gi rek mu nuyoo su ko defee ñu wéyal bi kilifa gi nuyu naa. waaw euh, maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew. Euh, je m'appelle Ayouba Ibni Yamati Sarr nekk un habitant de Diamaguène donc euh, cité di nekk cité nekk sama cousin. vraiment lii ñu ko doon waaj ñu ko doon waaj depuis des mois et des mois donc di wax alhamdulilah parce que lépp ci alhamdulilah lay commencé et si lay teeree donc journée bi nag mu doon journée boo xam ne population Dionewar euh, jàmm ak gënuwaas bi da ko doon xaar donc mu doon loo xam ne aussi boo xoolee ñu fi teew ñëpp ñëpp euh, wuy si nañ Siteu boo xoolee ndaw mag ñi paay maire yi ñëpp wuy si nañ donc on peut dire que ce 5 euh, fév ce 5 2022 est une date vraiment historique pour Diamaguène parce que Siteu comme ni nga ko waxee tout à l'heure dans ton introduction yàgg na def lii yàgg na def ces actes vraiment social donc euh, bii da ko ñëw jëmal rek da ko ñëw jëmal te boo xoolee euh, may deret dafa doon loo xam ne nii euh, mbiru yàlla la parce que c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer dans les laboratoires nit moo mën a am initiative bi maye ko parce que maa ngi doon dégg borom xam-xam di wax ne quantité offre offre sang c'est vous offrez une âme parce que day mel ni da ngaa sauver humanité bi soxla actuellement ces gens d'acte et mu doon loo xam ne aussi ñu ngi koy saluer ñu ngi koy saluer Diamaguène mënul fay Siteu laay wax parce que vraiment mu ngi taxaw Diamaguène saa bu Diamaguène soxlaa rek wuy si na ko euh, ñu koy remercier di ko ñaanal yàlla fi mu jëm aussi yàlla euh, jëmale ko foofu ba nga xam ne daal incha allah pour ces euh, combats yi nga xam ne mu ngi ñëw yàlla yàlla yàlla yàlla taxaw ko ci daal. Mm. acte bii nii comme ni ma ko waxee vraiment du loo xam ne population ja Diamaguène Ouass bi da koo bett parce que fii la dëkk def nañ communication def nañ lépp aussi mu doon loo xam ne daal actuellement nii contentement lay nekk pour ñun daal. Mm. Euh, pour Diamaguène pour ñëp vraiment loolu daal la amoon lu may introduire. Euh, di kontaan ci ñëp rek di kontaan ci média bi di kontaan ñi fi teew ñëpp di kontaan ñi nga xam ne bëggoon nañ teew te actuellement seen temps mayu leen ko mm. parce que ñoom aussi teel nañ ñëw teel nañ def liggéey bi donc di wax alhamdulilah daal waaw mu ngi noonu. jaajëf am na solo. Mm-hmm. kilifa gi. kilifa bi maa ngi lay nuyu nan nga gisee tey initiative bi nga xamante ne xew na fii biir Diamaguène nga présenté waa waaw maa ngi lay fay en même temps di fay booloo mi fi ñëw yëpp ak média bi ñoom ñëpp. Euh, initiative moom franchement dañ ci kontaan quoi et que gis naa ni jeunesse de jeunesse quartier bi ñëw nañ massivement def don bi en première ñoo ngi nuyu di sant di gërëm ki initier action bi quoi action Donnons Sang bi muy Litter Sitter ñoo ngi ciy gërëm di ko sant au nom du au nom du directeur du centre et du et des chefs de service ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo xam si ñëw nañ def don de sang bi waaw def don de sang c'est une action humanitaire c'est sauver des vies en même temps parce que y a plus de cinq cent cinquante poches yoo xam ne si chaque jour ay nit danuy ñëw pour soxla deret pour mën leen ko jox quoi une fois ngeen def action bi da ngeen di jëmle chaque jour pour ñu am nombre de poches pour mën a sauver des nit quoi des personnes yi mm-hmm. waaw. ñun ngay wax ñi nga xamante ni ay mbër lañ euh, dëkk ci ci gox. bu ñu wootee mbooloo mu bari uy leen te ngeen soxla leen ci lu mel nii. waa lii opportunité la une fois yàlla may la doo wootee ni ñi fekk si la da nga si war a gën a jaamu yàlla quoi en fait gën si def ay action yoo xam ne si ñëpp si gis seen bopp. comme lu mel na doo de sang c'est sauver des vies en même temps waaw ñu mel na ñoom ñoo ngi woo ñëpp pour ñu def na cité comme li mu def ñoom ñëpp ñu def don de sang. ak yeneen action yu nuru comme yi waaw. ok ok jërëjëf kontaan nañ trop ci yéen. nee na nga xam bi ñu ñëwee léegi ñaata poches la ñu on a plus de soixante dix neuf quatre hmm. waaw on a quatre vingt donneurs. macha allah kontaan nañ trop. waaw ak ay ak xam ne si sax peut-être bëggoon nañu def moom mais heure bi moo leen ko mayu quoi waaw ndax ñu gën tànk day xaw moo tax.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 ñun xamuñu suñu suba. Mm. xamuñu suba dañuy dimbali may ñu deret. Mm. xamuñu suba dañuy fekk foo xamante ne ay situation yu métti lañ. Mm. parce que suñu dund jeexagu ah. waaw waaw. yaaw. yaaw kay. yaaw geste bi Siteu loo ci wax. te yow moom gis nañ la maye nga ñu koy ñaanal yàlla war a gudd fan rek geste bi dafa nice. man moom ku ma yëg rek ma yëg sama nii la tam ak moom démb la woon du tey. démb la woon démb am na yoo xam nag du ko faral sax di wax man. waaye daje nañu mbabatu Birame Ndiaye jamono mu war a bind ñu ne du bindu. ma ne buñ ci bu ñu woowee benn tur siifal ma yokk la doole. xam nga dafa yàgg ak yeneen yeneen kon geste bi dafa nekk loo xam ne geste bu rafet la man heure bi ma wooyee si geste bi nii damay teew ndax man aw ma dara lu banlieue dali fara jóge tuxu buun du ma remercier kenn du waa buun ndax falaa dëkk ara yaawu jàll sant yàlla kon Siteu bu bu defee lii ma dama koy rafetlu di ñaan yàlla nag nag état senegal jàppale mu jàppale ko xam nga jàppale moo la de Siteu mbooloo moo topp si ginnaawam daanaka jàmm gën jàpp fora buun yëmbal heure bu jógee ñëppay jóg kon am na loo xam ne boo amee rek ko siy jàppale muy lan mbër la Sénégal yëpp xam nañ ko yaa ma dégg bu bu bu defee rek si def dara muy lan ne wutal gars yi maanaam job comme loolu loolu loolu muy wax occasion la quoi xam la si da bu wax kenn lu bon lu ñaaw c'est que bu gisee booy ñu toppee si ay ginnaawam mu bëgg booy am dara su loolu lay jooytoo mais nekkul dafa contre état wala dafa état loo xam ne nag su loolu amul c'est pas vrai ndax état bu la bëggee faaga tey te day faag ay seconde man xam naa lépp waaye man du ma liggéey ay business xam la man waa mooy loolu man ñaan ma yàlla lu monsieur le président Macky Sall dama bëgg mu gëstul ma si tamit man nag mën a maa ñàkk bañ a gëstu quoi ndax am nañu jàmm quoi nees ma am ndax nag maa maa moom jamono Abdoulaye Wade la woon moo tax foofu dara lu ñëw xalif sama mag état bi am de daal man dama bëgg mu jàppale sa waa ji ndax lu mu def nii dafa jafe bëri na mbër yoo xam ne ñu fay centaine de millions ñoo ngi ko def te defuñu ko man dama gëm sama bopp moom xam na loolu am na mbir yoo xam ne lu Siteu def lu ñu war a def mais defuñu loolu boo gisee saa mu am personne mooy booy lu ñuy toppee si yaay ginnaawam loolu moo ko joolee fu mu toll moo tax léegi bu mu noonu bu dee yor naa yëkk benn junni ba jeex mais nag tey bu nekkee da am foo xam ne dafay jàpp weer bu dee mu fay kon sant yàlla la kon man tey la moo tax mënu maa faale benn mbir bu nekk cent millions Abdoulaye dama ma teral gannaaw yàlla di sant ñoom Modou Fall borom njaaram Dame Diop di sant waa Sénégal yëpp di remercier nag réew neex lii daa mën daal lii laa xam ñu daa sant yàlla yàlla jàppale wasalaam